muy gaynde gu góor gi waaye kat dafa am yeneen ñaari garab yu ca ko benn bi nag jabet lay faj nee na ma nag képp koo xamante ni am nga tawat boobu ñu naan jabet boo jëflantee ak moom di nga ca am lu kawe sa njortu beneen bi nag moom hémorroïde lay faj nee na ma garab bii baax na lool ci hémorroïde waaye moom yemul ci réew mi ndax ay banqaasam law na ba Europe waaye bànqaas yooyee ji nañu Europe dem ba Amérique du Sud bu dee ca Europe moom dëkk yi may waaj lim képp koo xam ne foofee nga nekk yittewoo ci garab yi rek jàppal ni Serigne Cheikh Ndiaye am na ndaw lu ko fa teewal muy ca France itali Espagne Allemagne Angleterre waaye ca Amérique du Sud tamit dëkk bu ñu naan Brésil am na ndaw lu ko fa teewal ba ca Argentine waaye yemul foofee képp ndax ca États-Unis tamit am na ndaw yu ko fa teewal kon képp koo xamante ni yittewoo nga garab yii rek mën ngaa woote ci numéro bii may waaj a lim muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 ñoo ngi ñaan nag képp ku jokkoog moom rek yàlla na sa aajo faju ci barke maamam di sëriñ Daaru Assane laata ñuy door revue de presse bi nag ñoo ngi leen di jéggulu baat bi tey jii xawul neex dara dañoo xaw a soj loolu sax moo tax revue de presse bi xaw a tardé ñoo ngi ciy jéggulu bu baaxa baax ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Nampalys Mendy la journal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag dellu si waat na ci équipe nationale bi waaye du moom képp ndax Noah Fadiga ak Fodé Ballo-Touré yëpp ñëwaat nañu ci équipe nationale bi bu dee Nampalys Mendy moom li tax daawuñu ko woo bokk na ci amul woon club waaye jamono ji am na club ma nga ca Lens di doxal bu dee a Fadiga moom tamit amoon na jafe-jafe ci wàllu wér gi yaram ba taxoon club ba mu nekkoon ca France dagg contrat bi leen lëkkale woon ak doomu Sénégal bi jamono ji nag ma nga ca réewu Belgique club bu ñuy wax la Gantoise loole bokk na ci li tax Aliou Cissé woo ko keneen ki moo di Fodé Ballo-Touré moom it ca AC Milan ga mu nekkoon amu fa woon temps de jeu loolee bokk na ci li tax daawuñu ko woo ci équipe nationale bi jamono ji nag dem na ca Angleterre club bu ñuy wax Fulham ma ngi fay doxal loolee bokk na ci li tax ñu woo ko kii gan ci équipe nationale bi moo di Mamadou Sané moom latéral la gaa ñi miin nañu ko lool nag ci équipe nationale loko bi jamono jii ma nga ca Aris Limassol moo tax Aliou Cissé woo ko ngir mu jàppale équipe nationale bi ci match amical bi ñu am Cameroun la Sénégal war a jàkkaar lool waaye Aliou Cissé mi wax nee na jamono ji nag concurrence mujje gu mag moo am ci sunu camp yi nee na jamono ji amatul kii moo fi nekk mooy góolu ku mën rek yaay góolu numéro amatul ci équipe nationale bi képp ku mën yow la ñuy teg ci kang yi nga doxal jamono ji nag défense sub Sénégal jaaxal na ko muy Aliou ndax xam na ni jamono ji doxut waaye nag mi ngi liggéey ngir défense bi dellu fa mu nekkoon bañ di jël ay bit yu bari Aliou Cissé moo yëkkati kàddu yooyu waaye wax na tamit ci Noah Fadiga nee na Noah Fadiga de soo leen gisee ma woo ko rek mi ngi football ak clubam loolee bokk na ci li tax ma woo doomu Khalilou Fadiga bi Aliou nag li mu xamle moo di match boobee dañu ko war a gagné ngir fàtte defet bi ñu amoon sunu diggante ak Algérie journal bi tamit ñëw na ci ñancoo Sadio Mané ak Edouard Mendy ñoom nag ñoo ngi amal ay jaloore ca sawdi Pro ba bu dee ñancoo Sadio Mané ànd ak waa Al Nasr démb Al Aba lañ doon jàkkaar lool match boobee nag ndam demul ndam dikkul al nasr moo mëne ñaari bal ci dara waaye ci cëppaandaw ga al aba dafa égaliser match bi jeexee 2-2 ñancoo Sadio Mané nag dafa depart titulaire doxal na amal na passe décisive ca match boobee bu dee Edouard Mendy ànd ak waa al ahli ñoom démb al itihad bu ñoom Karim Benzema lañ doon jàkkaar lool gañe ko benn bal ci dara Edouard Mendy nag doxal na ca match boobee taxaw ci kang yi kenn dugalut ko mu amal clean sheet bu ama am solo ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay Pape Matar Sarr ak waa Tottenham le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey jii nag bu 11h30 jotee Luton Town la ñuy jàkkaar lool match boobee nag waa nam ànd ak Postecoglou mi leen di tàggat ñu ca amee ndam ñooy jëlagum pee maanaam ñooy toogandeegum ca bopp classement Premier League ba kon xaar leen ko te ñaanal Pape Matar Sarr mu départ ca titulaire doxal ndax footballu Sénégal am nañu lool yaakaar ci moom waaye suba nag ñoo ngi match bu neex ca Premier League ba ndax Arsenal mooy jàkkaarloo ak Manchester City bu trois heures et demi jotee suba la nag ci dimage ji incha allah journal bi tamit fàttewul équipe nationale beach soccer bi xam ngeen ne qualifié nañu ci coupe du monde bi nga xam ne ñoom la ñu ko jagleel xam nañu tamit ci ban group la ñu bokk muy groupe C Bélarus la ñu ko bokkal Colombie ak Japon kon nañu ñaanal équipe nationale bi bu ñu yeggee ci weeru février atum 2024 ñu dem ca coupe di monde boobee ci jàmm gagné coupe bi indi ko ci réew mi loole lu mën a nekk la fii ci réew mi tamit suba ñoo ngi fii xaar lamb ju nar a neex aada Fass bàyyeekoo ca Fass mooy jàkkaarloo ak sos bàyyeekoo ca parcelle Assainies lamb joojee nag suba la nañu ñaan yegg ci ci jàmm mu door ci jàmm jeex ci jàmm li du génn réew mi ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Pep Guardiola ak Mikel Arteta la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñoom ñaar nag ñoo war a jàkkaarloo suba Mikel Arteta nag moo attaqué Pep Guardiola xamal ko ne ko suba dama bëgg am ndam sa kaw ndax Arsenal kat juróom-ñetti at maanaam huit ans moo ngi nii demul ci stade Manchester City gagné ko fa Mikel Arteta nag nee na loolee lu mën a jeex suba la li bëgg moo di jëmbat fulla am ndam ci sa kaw te loolu la Mikel Arteta xamal goneem yi ne leen gëm leen seen bopp loolee lu mën a nekk la ndax gisoon nañu fi mën sa Manchester United ak Arsenal quatorze ans fukki at ak ñeent Arsenal demul ca Old Trafford am fa ndam waaye loole jeex na ci atum deux mille vingt et un Arsenal fekki na Manchester United gagné ko kon nag juróom-ñetti at yi nga xam ne toog nañu ko fekki wu ñu Manchester City gagné ko loole laa bëgg mu dakk suba suba li ma bëgg man ak samay gone moo di am ndam ci kaw Manchester Pep Guardiola Mikel Arteta moo xam le kàddu yooyu waaye Pep Guardiola tamit mi ngi wax nee na match moom tamit moo koy waajal ak goneem waaye Arsenal gii mu gis nag Arsenal gu baax la te da koy fàttali Arsenal bu Arsène Wenger ndax Arsenal bii mu gis wuute na ak bawoon li ko waral moo di kat saison bii dañoo dolli seen doole te tamit dañoo am ñaari gone yu baax lool muy Kai Havertz ak Declan Rice ñaari gone yooyee dañoo baax lool te ñoo ngi doxal ak Mikel Arteta waaye man Pep Guardiola ak samay gone noppi nañu ngir dugg ca match boobee doxal suba la nag bu trois heures de demi jotee. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay waa Real de Madrid rawatina benn défenseur bi ñu am tey jii muy Antonio Rudiger la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa défense sub Real de Madrid de nga ca hôpital ba loolee nag du samay kaddu kaddu journal bi la jii bu quatorze heures et quart jotee maanaam deux heures bu tegalee fukki minute ak juróom Osasuna la Real de Madrid di dalal ca Santiago Bernabéu Rudiger képp nag moo fa nekk comme défenseur centrale waaye ñaar ñii nag kenn lañu koy booleel mu ànd ak moom doxal muy ni wala Ferland Mendy ndax Nacho du bokk ca match boobee David Alaba tamit wéregut ba ca Eder Militao tey jii nag bu quatorze heures et quart jotee Osasuna la ñuy dalal waaye Osasuna boobee nag ñaari saison yii ñu génn yépp match nii lay jëlee ci Santiago Bernabéu kon waa Real de Madrid nañu waajal match boobee li ñu bëgg nag ñoom waa Real de Madrid moo di am ndam dëggal seen bopp ci première place bi waaye journal bi mi ngi leen di artu ne leen kaane xeeñ gi nag ci côté Osasuna du kenn ku dul doomu Argentine bi tudd Chimi Avia gone gi attaquant bu mën la muy def la te défense sub Real de dafa gàllu góose lool ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Luka Modric la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey jii nag bu Real de Madrid di dalal Osasuna su fekkee doomu Croatie bi départu titulaire loolee dina jur coow maanaam dina jur débat ca club boobee di Real de Madrid li ko waral moo di ñaari match yi mujj soxal Liga e-sport Modric footballut ca benn minute Real de Madrid jàkkaarloo na fi ak Las Palmas ci banc bi la Modric doore match boobee ba mu jeex duggut jàkkaarloo na fi ak Girona ci banc bi la dooree match bi ba match bi jeex footballut ca benn minute tey jii nag su fekkee départu titulaire mën naa jur débat bu mag foofee ci Real de Madrid waaye karlu Ancelotti mi ngi wax nee na ñu bëri nag li ñu jàpp moo di Luka Modric de bu fekkee dafa wéy ci nii maanaam amul temps de jeu bu doy dina jógee ci club bi bu ñu yeggee ci weeru janvier waaye man Carlo Ancelotti gëw ma loolu jàpp naa ni Luka Modric dina toog ci club bi ànd ak man doxal loolee la Carlo xam le tey jii nag Osasuna la ñuy dalal waaye seenu défense gàllu góose na lool ndax wéru gudd du mën a bokk ca match boobee ni wala Mendy kenn moo ciy feggoo ak Rudiger doxal ca défense ba journal bi tamit ñëw na ci coupe du monde 2030 bi nga xam ne ñetti réew yi ñoo koy daloo muy Espagne portigal ak Maroc waa FIFA nag joxe nañu date bi ñu war a amal final boobe bu ñu ca yeggee incha allah muy la 21 juillet 2030 waaye nag FIFA nee nañu ñetti réew yi koy daloo yépp kenn ku ne ci ñoom dina am match d'ouverture loole la journal bii di aas yéene kay xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Jules Koundé ak Ronald Araujo le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa le mur du Barça Barcelone nag jamono jii ab défense bu wow koŋŋ la ñu am rawatina paire bi ndax ñaar ñii kat ña ngay doxal ca Barcelone ànd ca ak Xavi waaye kat Xavi noppeegul ci ñoom li mu bëgg moo di dio bi nekk dio bi mën ci adduna cib défense ñaar mi ngi liggéey ak ñoom te liggéey boobee nag commencé naa feeñ ndax ñoom ñaar ñii kat bu ñu taxawee ci défense su romb leen dina jafe lool muy Koundé ak Ronald Araujo bu dee araw Araujo moom gis nañu ne bi Xavi ñëwee ca Barcelone ak tey jii doomu Uruguay bi dafa gën a màgg ndax jamono jii dafa xarañ lool am doole mën li muy def mën a kar loolu nag liggéeyu Xavi ngi ci bu dee doomu France bii di Jules Koundé moom daaw li mu doon football ca latéral ba moo ëpp waaye ren jii nag Barcelone am na latéral Koundé nag mi ngi dëggal boppam ci défense bi te mi ngi doxal bu dee Frenkie de Jong moom dafa blessé te ñëwagut blessure am boobee wéragut Xavi nag li muy xalaat moo di su fekkee oriel Oriol Romeu doxalut ca milieu de terrain ba mu yóbbu seen ca milieu de terrain ba mu doxal loole la journal bii di esport le ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Vitor Roque la journal bi fësal ca wu njëkk wa objectif janvier waa Barcelone nag li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier doomu bi jógee ca ñëw jàppale leen ndax soxla nañu ko lool su ñëwee dina leen mën a jàppale ci seenub attaque rawatina bu doon jamono ji nga xam ne Robert Lewandowski dafa blessé waaye Deco mi nga xam ne mooy directeur sportifu Barcelone jamono ji ma nga ca Brésil ngir waxtaan ak gone gi lim koy xamal moo di soo ñëwee dinañu la enregistré ndax am na fond bu ñuy xaar maanaam am na xaalis bu ñuy xaar mi ngi toll ci quarante millions d'euros loolee nu ca jotee yow dinañu la mën a inscrire soo ñëwee doo am benn jafe moo di indi ko ci weeru janvier mu jàppale Robert Lewandowski ca attaque ba Lamine Yamal it mi ngi ci journal bi De La Fuente mi tàggat équipe nationale bu Espagne woo na ko ci match yi mu am waaye kat De La Fuente wax na ci doomu Espagne bi nee na Lamine Yamal de li muy def mën na ko te at yi mu am bi mu ko amee ni jaloore ji muy def ñaar ñi defuñu ko woon bi ñu amee at yooyee muy Lionel Messi ak Maradona kon lamin Yamal football am na lool yaakaar ci moom loolee bokk na ci li tax ma bi moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee Espagne wëtali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport José Mourinho le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa AS Roma gi muy tàggat nag noppi nañu ngir dàq ko ndax doomu Portugal bi kat doxalut saison bii ñu nekk ak waa AS Roma jamono ji AS Roma moo jël treizième ca Serie A te loole nag gën a dut moo tax jox nañu ko ultimatum maanaam jox nañu ko app suba Cagliari la ñuy jàkkaar lool match boobee su fekkee AS Roma ànd ak José Mourinho amuñu ca ndam mën naa am ñu dàq José Mourinho loolee la surnal bi xam le bu dee Maximiliano Allegri moom tey jii bi la am Torino la war a jàkkaar lool waaye kat benn attaquant képp la am muy Moise King ndax ñaari attaquant wam yi gën a mag dañoo blessé jamono ji seen bokk ca match boobee wóoragud muy Federico Chiesa ak Dusan Vlahovic Moise King képp moo fa nekk jamono ji loolee la surnal bi xam le bi la nag quatre heures lay door ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Paul ba le surnal bi fësal ca wu njëkk wa ba nag génn yuufe la gën a jege waaye Juve googee ñoo ngi xaar xaalis bu toll ci deux cent millions d'euros xaalis boobee waa Juve ngi koy xaar te jàpp nañu ne dina ñëw balaa yàgg bu dee Paul ba moom jamono ji dafa nekk ci ay jafe-jafe ndax dafa jëfandikoo produit boo xam ne dopant la ñu defaloon ko test dëggal ko defalaat ko test dëggal ko nag mën naa tax ñu aj ko ay match yu bëri du football waaye yuufe li ñu bëgg moo di dagg contrat bi leen lëkkale ak doomu France bi loole la journal bi xam le bu dee Lautaro Martinez ànd ak waa Inter tey ji bu 13h bolo Bologna la ñuy jàkkaar lool Bologna boobee nag défense bu wow kongo la ñu am ndax ñeenti bit képp la ñu encaissé gum ci série A waaye ñoo ngi jàkkaarloo ak capitaine Inter bii di Lautaro Martinez mi nga xam ne jamono ji kenn mënu koo téye match boobee nag treize heures lay door maanaam bu une heure lay door bu ñu yeggee ci dix huit heures quarante cinq nag AC Milan mooy jàkkaarloo ak Genoa